asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa Abdoulaye Diop Gandigal ba léegi kon moo dellu si leen defal deuxième vidéo bi ci étoiles yi ma waxoon ci bisub dibéer samay contact ko soxla 77 672 33 84 ba tey 77 672 33 84 77 ba tey 396 47 86 77 396 47 86 681 76 681 74 63 76 681 74 63 kon ñu ñëw directement ci bisub dibeer waxtu wu njëkk wi ci mm, diggante nag la 4 mm, avril lay commencé bala bala la le 5 le 5 mm, avril lay commencé bala 4 juillet ci la bii di dox bu àggee foofu day soppiku soppiku gën yëpp yëpp nag duma ko leeral ci kii lii dama koy xame ma loo xam-xam nit ñi rek pour Euh, ku ko bëgg a xam nag boo ma boo ma ñu leeral la ko incha allahu taala kon danaa leen ma leeral leen bisu dibéer bi bisub dibéer ci waxtu woowu ñetti weer yooyu ak benn bis muy saison bu njëkk bi bu taxawee moom fi mu ne nii ci lañ nekk le cinq avril lay taxaw bala 4 juillet mu jeex ci lay dox ci diggante boobu. boobu dibéer bu fi ñëw rek waxtu wu njëkk wa sams la sams boobu nag bu ñëwee lil maaba lañ ciy def wal xabuul du duqul alal muluk yooyu lañ cay lañ def. was ñaareelu waxtu boobu baaxut nasara moo fa ne daje faak biddiwu sonra diir su ca def dara baaxut la rawaan yi fa nekk dañuy yàq dañuy lor loo fa defee dañ ko yàq ñetteelu waxtu gis nga ko ñ wolof kii naan bisub dibee de su ko tukki ah kay ci ñi am xam danañ ko tukki saafara fiyaa lilaat fi wala ma wal danañ ca tukki ñetteelu waxtu ci bisub dibee ma na caa tukki waaye na nga ko mën a natt ba xam la ngay def nga xam ko lool loolu la wàññiwul dara ci boo xamee ki xamul nag lañ koy wattaloo bis ba yëpp ndax euh, jéeyaam ñaara day mag ñeenteelu waxtu wa xamara fay nekk laa tabi fiyaa sayaan bu ci jaay dara bu ci jënd dara yooyu yooyu lay bañ moom jaay ci dara mbaa jënd ci dara pertement lay jural juróomeelu waxtu wa soxal moo fa nekk lel farixa càqale dara ak xeeti tàbbal ay mbañeel wala dindi ko wala xada xeeti xadaawa ay noon yooyu lay def gis nga juróom beneen waxtu ba tey nasra dil siwaat ba tey ba tey ba axakay ah, ah, nasra baax na foofu sool mustra mustra fay nekk alxawaa ji mi neen lépp loo soxla ci buur yi foofu lañ koy ñaane eh, juróom ñaareelu waxtu mari xa fay nekk laa tax ma alfiya say an di loolu dee su ci ñaan dara baaxut moom itam day lore eh, juróom ñetteelu waxtu sams dil siwaat sams dil siwaat اعمل فيها جميع الحوايج من غفا ديف لو صوب من غفا نيان لو صوب جوروم نينت لو وقتو سورتو مو فاي نيك لي جلب ناس وات في القلوب والملوك لا يوي لا نتي نيان